ñu ngi ci ñaar fukkeel bi ak ñett ñu ngi ci addiyaafatu samadiya min al ahadis al muhadimiya ci xaaj bu njëkk bi sëriñ tuuba xaade la walaw maxtaar la woo nee na ko xam yàlla du topp ku dul yàlla ku sàggan du dopp lu dul bakkanam ko xam yàlla bu guddee mu jëm ci boroomam ku sàggan bu guddee mu jëm ci jigéenam wér na lool sëriñ tuuba xaade la walaw maxtaar la woo nee na la yàlla sunu boroom waral ci jaam yi digal leen ko misaalam mi ngi mel ni ku ni la andil ma napp ma defal la ci aw ñam boo ko andee mu defal la waaye boo ko andiwul du ko lor dara inna allaha binnaasi la raufun rahim wér na lool xutbab sëriñ bi ci ku ñuy may soxna sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaalowoo lii mooy ab xutbaam ci ak maye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 وأنها قد زوجتها إياه على قدر كذا بإذن وليها إن كنت وكيله وإن كنت وليا فلا يعتاج إن كنت وليا وإن كنت وليا إن كنت وكيلا إن كنت وكيلا إن كنت وكيلا وإن كنت وليا فلا يحتاج إلى ذكر أحد fa ajaabuhu sawju aw wakiluhu baada alxaqdi ni xabiltu waraditu li nafsi aw li fulaanin wér na lool sëriñ bi xaada lahoo waxtaala lahoo ni mu waxe andi na lépp waaye xaaja na leeral ci wolof kon kii fas bu dee kilifa ga dama yaakaar ni bu waxee ba ca xadri kasa kasa da ciy teg bi is ni mu jeex budul kilifa ga mu wax bi is ni wàlliyaha mu jeex bu fa boroom këram nekke te mooy ki ñuy may mu wax lii xabiltu wara waradiitu li nafsi bu fa nekkul ka ko fa nekkal wax lii mooy xabiltu waradiitu li fulaanin tudd turu kañ koy may bu fa lu man ñaar wala lu ko ëpp nekkee wax ni seede nañ loolu waxi sëriñ bi ci dëddu adduna akuk wareem wamal xayaatu dunya illa mataahul xuruur sëriñ Tuubaa xaadalowoo laaw maxtaalowoo nee na misaalu murit buy doore a jébbalu mi ngi mën ni gone guy door génn ci biirum ndayam soow dong mooy doon ab dundam bu ko nampul di faatu te ngeen xam ni gone goo xam ni ndeyam bari nam soow koo ko gis xam ko yéen nag seen nday am soowam du jeex képp ko nàmp ci moom dana dëgër dana am xel kon nag sax leen ci seen ndey ba leen te bu ngeen feree bu leen lekk suuf ndax kat kuy lekk suuf te bàyyi woo ko dana tawat te tawat mooy sababu saatu suuf soosu ñu leen di tere ngeen lekk ko mooy adduna ak ay rafet rafetam ñam wiñ leen digal ngeen lekk ko mooy bàyyi adduna ak li ci nekk te ngeen xam ni nday ju xër ci doomam raw doomi jàmbur yépp lay doon looloo tax seen nday wax leen loolu ndax bëgg aduna day dugal ci seeni xol loo xam ni la ngeen koo génne da ngeen sonn lool sax leen ci sopp seen nday te bañ a geestu keneen na ngeen yoro melaw gone gu ànd ak ndayam nga xam ni bu gisee ndayam mu doy ko sëkk bu ko gisul tàmbulee def num ko gisee doom nag li war ci moom mooy waxtu wu ne muy nekk ci wetu ndayam bu ko defee dara du ko lor bu ko deful nag bu mu yedd kenn ku dul boppam maa ngi ñaan yàlla mu defal leen ngeen bokk ci doom yi nga xam ni duñ gis ku dul seen ndey amin wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaalawoo nee na ku soxla woo njariñ yi ñu dox sa digg ak aji jariñ ji ku soxla woo aji jariñ ji mu xëccal la njariñ yi wér na lool Sëriñ Tuubaa xaada loxo la maxtaar loxo mas naa julli tàkkusaan ci gaaw fukki fan ak juróom benn ci tamxarit atum wam sas ba sëlmalee wax ni maa ngi leen di digal yéen ñëpp ngeen téye seen làmmiñ tey toog seeni kër tey farlu ci ñaan ak saraxe ak saxal julli juróom bu ma kenn jéem a gis nag ba weeru gàmmu teru ak mbir mu man di doon li ko waral dama leen a bëggal lu leen di jariñ te du leen lor teɗi leen begloo ci addunaak alaxira yéen ñi fekke liima wax ni ngeen ko jottali ñi ko fekkewul wér na lool ginnaaw nuy la tàmbali tëjoom boobu nga xam ni ci lañ ko mujja gise nga xam ni lii mooy waxtaan wi mujja waxtaan te doonul waxtaanwu waxtaanu ndaje xëy na yàllaa xam sëriñ tubaa xaadaloo la maxtaaloo nee na nit ñi dañoo maase jublu lenn loo xam ni amal ko mooy daytalub seen soxla fuñ tollu di ca buux booxloo te mooy yeesal àdduna te moom àdduna lim bëgg daa safaanoog seenu bëgg ndax moom dëdduna te kenn du ko jot te ak bëggam mooy ñoom ñëpp ñu jeex wér na lool waxi sëriñ bi ci ataaya ak kafe habliya fil mubaaxi lii ujoora ibaadaka la xurri walan ajoora sëriñ Tuubaa xaada lahu la maxtaar lahu lii moo ko daan bind di ci junj li ko yàlla sunu boroom may ci ataaya ak kafe ak atum bam sasin nee na ataaya alif gi mooy azhabal mafasida wal makaariha wal afaati sunu borom dama dàq na mboolem yàq-yàq yi ak yun sib ak gàkk-gàkk yi taa tombe gi mu ni tawfiixan minhu yàlla defa na ma tawfiix bu dëkk jóge ca moom alif gi ci attaaya gi attaa alif googu xëcc mu ni attaaniyallahu yàlla jox na ma tawféexan minhu yàlla jox na ma tawféex guddi gi mooy taagoogu yaa ngi mool wal yusru wal yaqin bu dee alqahwatu dañuy alif gi mooy akramtuka teral naa la laam gi mooy laqantuka mooy sanaa la gi mooy xawwaytuka ala ridaaya mooy dëgëral naa sama gërëm alkubeer gi mooy xaddaytuka asiraatal mustaqim teg naa la ci yoon wu gën a jub waaw gi mooy waalaytuka bila xaslin féetu naa say mbir te du la wàccati taa gi mooy alxaxwatu mooy taw fii xan min nii defal naa la ko bam sasin it daana juñu ni baa mooy barakatun laa tanqatiya miim gi mu ni milkan laa nguur gu du deñ baa gi mooy barke bu du deñ miim gi di nguur gu du deñ siin gi mooy saadatan laa tanqati texe goo xam ne du deñ siin gi mooy shukran laa yanqati abadan sant goo xam ni maanaam du dog ba mukk xëy na daa bëgg a wax ni yàlla sunu borom may na ko ci attaaya tawféex ak barke ak kóolute ak jàppandal ak demuk yàqu-yàqu yëpp ak yiñ sib ak gàkk bu dee kafe yàlla may ko ci tawféex ak ànd ak moom te du ko wàcc ak akuk tegu ci njub ak dëgër ci lim gërëm akuk teral ak xamal ko alxuraan bu dee ba bam sasin yàlla may ko ci moomeel gudul dog ak barke gudul dog ak texe gudul dog ak sant gudul dog faawu wallahu alam ñu ñëw ci weer bi ak benn waxe sëriñ bi ci weeru baraxlu inna ansalnahu fi laylatin mubaraka sadaqallahu alazim sëriñ tuuba xaada lahoo lahu maxtaar lahoo nee ni ngeen farlu ci tuub gu sell ak jëf ju yiw ci guddi gi njëkk ci baraxlu ba weer wi xaaj kuy farlu ci diggante booba duñ ko bindal lu dul aw yiw yépp ci gudd googu lañ koy atte sunu boroom nee na fiihaa kullu amrin hakim wér na lool waxi bi ci wér day waskurullaha kathiran laallakum tuflihun sadaqallahu al-asim sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaloo nee na ko julli suba ci yéen na jàng bismillahi rahmaani rahim laa hawla wala quwwata illa billahi al asim fukki yoon teg ca ina anzalnaahu fii laylatil xadri ñetti yoon naka noonu ginnaaw timis Sëriñ Tuubaa xaada lawo laaw maxtaar lowoo nee na dénk naa leen ngeen di jàng xulu walaaw ahat fukki yoon ak ñaar ginnaaw julli gu ne werdu na ci dolli ko yurul aw werdu na ko doyloo wér na lool Sëriñ Tuubaa xaada lawo laaw maxtaar lowoo nee na ku julli timis ci yéen ba noppi na julli ñaari rakka bu njëkk bi fatiha ak xul yaa ayyuhal bu ñaareel bi mu jàng ci fatiha ak xul huwa laahu ahad bu sëlmalee wax lii ñett yoon muy allahuma salli ala saydina wa maulana muhammadin nabi lumi wa ala alihi wa tasliman fu ngeen di bëgg a toog ngeen wax lii ñett yoon a'uuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma bu ngeen bëggee jug ngeen wax lii subhanaka allahuma wa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 waxi sëriñ bi ci melo murid isil muridu laa yuridu abada xayra rida rahmani haytu xasada sëriñ Tuubaa xaada la law maxtaar la nee na murid du moom dara dara du ko moom wér na lool sëriñ Tuubaa xaada la law maxtaar la nee na sëriñ bu xam yàlla bala moo am ak bëggam ci ab taalibeem faaw mu génn ci tànn boppam wommatu ci moom ci lépp balaa benn taalibee mus genn xet ci jagley sëriñam faaw mu mel noonu ndax yoon wi ci topp malaaka lañ ko jële te ñoom laa yasbiquunahu bil xawli wa hum bi amri yaamaloon li njëkk war ki bëgg a ci ca yàlla mooy bàyyi ak tànnam te taqoog lañ ko tànnal wér na lool may sëriñ tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu illa ya xaada laahu maalam wala yakunu abadan li mumkini Sëriñ Tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo nee na sunu borom may na ma ci xaa gi ci xam sasin ca guddi giñ barkeel xëy na muy fukki fan ak juróom ci baraxlu ne mu sunu borom may na ko ci guddi giñ barkeel juróom ñaari yëf may na ko ko ci xaa googu muy himmatun aaliya muy xitteju kawe haddiyatun xasimatun haddiye ju màgg hijratun minal xalaayiqi li wacci laay taxalaa gàddaay ci mbindeefi jëm ci aji bind ji ngir jëmmam huddan wa rahmatun jub ak yërmande xat mu binaa i dararil adaa i wala amraari mabbu tabaxub lori noon yi ak tawat yi sëriñ tuuba xaada loxo maxtaar loxo nee na du deñ saa su jant fenkee di dolliku ak topp gu koy dikkal gu bàyyi ko ci mbootum waxe sunu borom ji wa allamnaahu min ladunaa ilma ku aju ci moom ngir jëmmi yàlla yit du deñ di dolliku ak top gu koy dikkal saa jant fanke fenkee ci mbootum waxe sunu borom ji wa allamaka maa lam takun taalam ku ajuwul ci moom du deñ di dolliku aw digal aw digal wu koy dikk digale saa su jant fenkee ku ajuwul ci moom du deñ di dolliku aw digal wu koy digale saa su jant fenkee ci mbootum waxe sunu borom ji walakin aksara naasi laa ya'lamuun wér na lool Sëriñ Tuubaa xaada laxoo laaw maxtaar laxoo nee na li sabab samag bàyyi jëfandikoo dugub xëy na aw xeetu dugub wu jublu yàlla xam xañ na xeetu dugub la mooy Ibrahimu Faal bi ma nekkee ci géej gi damay suusal bu am suukar ak yeneen ngir ma koy jëfandikoo léeg bi ma ko musee mu mel ni ab cox ci sama gimiñ ma ko yàbbi ginnaaw loolu lañ ma tere jëfandikoo dugub ma amug jaaxle lool ngir ñàkk gi ma ñàkk xam sababu tere gi ak nim doone lu lew ñu ni ma boo ci jariñoo dara day dox sa digg ak ngay liggéeyal ma daal koy bëgg a boole ci ma jaayante woon ñinima boo ko defee benn doomu aadama du ci amati dara looloo waral jaayantewuma ko wér na lool suusal ci dugub lañ koy defar muy ànd ak gerte wala yeneen ñu ñëw ci bu ñeen fukk bi foofu la téere bi yam sëriñ tuuba xaada la woo law maxtaar la woo nee na bu ma ñëwoon njëkk alxuraan kon waskur filkitaabi diw dana ci bari lool waaye li loolu amul moo tax sunu boroom wecceel ma ko ci jaayu gi xaras di jaayu ci sama xalima wér na lool jaayu am na ñaari firi waaye fii lim fii firi mooy yëngatu wala luy dem ak dikk wallahu alam subhana rabbika rabbil izzati alamin téere bu njëkk bi ci addiyaafatu samadiya foofu la yam fees dell ak njariñ seen mbokk xaadimul xadim sëñ alxaaji mbàkke moo ko doon dajale yal na ko sunu borom gërëm ak laafaale ci mbokki jullit yi ci son yépp yal nañ sunu borom defal ngërëmam ngërëmul sëriñ Tuubaa sax dak ak mboot ak ngërëm ak barke wasalaamu aleykum wa taala wa